simila Barthélemy Diaz génn na ci kaso bi waaye laata may wax ci Barthélemy Diaz mi yéene kaay yëpp xëy fësal ma wax leen ki dugg ci rapitab sàmbalaw bi te soo moywul di wàcc fi ko neex muy directeur ADM di Mouhamadou Kabirou Sow moom ak daafam Cheikh Tidiane Sène ak entrepreneur bi ñuy wax sii Sidi Thiam ñi ngi leen di seet l'observateur yéene kaay ne lu tax ñu leen di seet benn wuruj sàcc alalu réew mi loolu yi lañ leen di jiiñ ak ger gi ñu dëkkee suba ak ngoon l'observateur yéene kay ne bu leen yaboo ñu dem rek wuy ji yoon te xam ni police ku mu seet jàppal ne yaa ngi ci biir gannaaw ba ñu ko génnee ci biir kaso bi l'observateur yéene kay ne Barthélemy Dias nee na lépp nag Abdoulaye Wade la Abdoulaye Wade bépp jafe-jafe ak watama njombi nga ci réew mi Barthélemy Dias ne kor wi yaan Wade la waaye di jaayib jaga Juuf mi ñu reyoon mer na lool ci biir l'observateur yéene kaay ne dañoo séntu Macky Sall ci avion mu wàcc ci saret ndax Macky Sall ba muy dagaan baatu askan wi daf leen ne woon askan wi déglu leen ma sama yoon nekkul ci wàllu yoon Barthélémy Dias rey seen doom ñu bàyyi ko ci biti waaye Lamine Thiam ne daañu eggale xeex bi ba Samba di ca Demba populaire yéene kaay waxtaan ak Barthélémy Dias mi génn ci kaso bi démb mu ne dafa canc maayin waa police bi ndax joxu leen carte li leer ba leer daal mooy Barthélemy Dias ne politique moo dugg ci biir enquête bi tax xam ne li muy def kaso mittiwaay doomi Jean Paul Dias ji moo ko wax ci biir Le Populaire yéene kay ne amatul temps sax di polémiquer ak di dugg ci ay détails waaye li leer ba leer daal mooy Barth la mu yàq Abdoulaye Wade Souleymane Ndéné Ndiaye Ousmane Ngom ak Cheikh Tidiane Sy weñ wu ca dal dee laas ko di ñëw ne Barth xaw naa dee ci karto bi waaye ba mu génnee nee na amutul sacrifice humain ndax nit ñi doon faat di yóbbu seen baaraam ak di yóbbu seen tànk du kenn ku ko def ku dul Abdoulaye Wade waaye bi Macky Sall toogee ci réew mi góor gi dem ba léegi Barthélemy Dias ne kenn déggatu fi sacrifice humain li leer ba leer daal mooy libération yéene kay ne ñaari doomi aadamaa ngi nii bu leen yeboo ñu xam ni dugg nañu ne ma rubba dana mel ni ba góor jaayee mbamba ne noppi du dem ndax enquête bi ñu def. ci audit bi kat moom jàppaleen ni digg ngi seet Baara Sadi Awa Ndiaye ak kan Diallo le quotidien yéene kay ne Ndaw Diallo léegi nag moom leer na nañ ci fondation éducation santé bi nga xam ni soxnas Abdoulaye Wade ko yoroon di madame Viviane Wade madame Viviane Wade le quotidien yéene kay ne ab fondation bu nekk Suisse moo koy aldande di ko laaj daanaka lu toll ci benn milliard ci suñuy koppar Abdoulaye Wade ne nañu bàyyi jabaram tout tranquillement dina fay boobule koppar te dootul yàgg Walfadjri Quotidien ne bàyyi dëggadiku gi nga xam ni moom la ñu bàyyi dëggadiku kii di Barthélemy Dias dafa mel ni nag beneen mbir boo xam ni juddu na ci muy mbiru Maître Babacar Sèye mi nu suul Lamine Thiam mer na lool ci biir Walfadjri Quotidien li xew ne li xew sax ndax dafa ëpp ndax Macky Sall c'est un président faible ndax boo ko xuppee rek am li nga soxla Abdou Latif Coulibaly ñépp xam nañu nii bërki démboo Njaay lu mu yàkkul Macky Sall amul Macky del na ko tabb ko mu doon ministre conseiller Moustapha Cissé Lo xëppante asib ak Macky Sall ñu dig ko Sénat bi Barthélemy Dias génn na ci kaso bi gannaaw bi mu ne Macky Sall dang maa seetaan seetaan moo dàq ci ndaje réew mi quotidien ne ni Sonatel ñandee lañ seet Macky Sall loolu sax dafa garaaw réew mi quotidien ne Macky bi mu toogee ci réew mi la dafa soxla woon koppar yu bari entreprise bi nga xam ni mooy Sonatel ne ko appel entrant yi rek nga war a génnee génne leen ma wax leen Leewtoo yéene kaay lim ñu wax ci combat bi ñëpp di xaar ci diggante Balla Gaye numéro 2 roi des arènes ak Eumeu Sène l'empereur des arènes Leewtoo yéene kaay ne combat boobu moom ku koy xaar léegi du am li am ba des daal mooy guy gi ak Ama Baldé mi nar a am dimanche doomi Alaaji Ala Njaay jee ko tëgg di Aziz Ndiaye ca stade Demba Diop lay am Walfadjri Sport ne combat boobu ko ci daan dina la yóbbu fu sori yóbbante galgal ubul lamb booy bambara nee na guy gi benn façon bëre rek la am maanaam jàpp la yëkkati la daan la ah, Selbé Ndom moom am na problème problème bu rëy nag ndax sëriñu Modou Lo yi ñoo ko commencé xub ne Selbé Ndom na leen bàyyi tout tranquillement bu mu wax ci combat Modou Lo diggante ma Gris Bordeaux bu ko waxee dinañ ko yàq waaye suñu làmb ne Selbé Ndom tontu na ndax ñëpp xam nañu ni làmmiñam damul ci biir poosam nee na yaakaarul ku dul yàlla man yaakaar naa ni xale yu ndaw yi danoo dof wala danoo doppooral li xew ci géej yi Walfadjri Grand Place ne dafa sax doy waar ay xale yu ndaw nga fay gis ñuy tux yàmba di def naka sudul noonu déglu leen ma l'observateur yéene kaay di jinne yéene kaay yi nekk ci réew mi yëpp indil nañ lu bees barki démboo njaay lañ doon wax nii dafa am menn maam bu jàpp sëtam jaay ko benn màggetub tubaab sët bi nag fukki ak ñett la am l'observateur yéene kaay def na enquête bi xale bi ba mu juddoo la yaay ji gaañu l'observateur yéene kay ne école bu mu jàngee ñu dàq ko ndax waaye juróom yi amuñu doole maam ji jël ko dénk ko tubaab bi yaakaar ni tubaab bi day def lu baax ndekete tubaab bi saa yu ñëwee Sénégal rek juróom-ñeenti weer yi mu def yëpp xale bi la jàpp def ko soxna xale bi saa yu demee classe rek di nelaw ñu koy seetlu muy nelaw ñu ne ko lan la mu ne dara ñu yóbbu ko ci docteur l'observateur yéene kay ne docteur bi ne xale bi moom bi ndaw li ne mëy yàgg na lool ndekete tubaab bi dafa jàpp xale bu ndaw bi am fukki at ak ñett def ko jabaram te ki ko waral mooy maamam daf ko jaay li leer ba leer daal mooy ñépp a bëgg xaalis waaye sénégalais yi moom xaalis jaral na leen lu nekk seetal ma lii rek jàpp sa sët bu am fukki at ak ñett dem jaay ku màggetu tubaab boo xam ni moo gën a saay-saay kaay leen ma saay-saay lii moom ku ko nar a wax ñu bale fi mbaa ñu yóbbu la kër yaama di tax ca mbaccante ga am déet Pape Samba Thiam aadame